voilà mbokk yi asalaamaaleykum dellusiwaat nañu ci suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu toog ak koo xam ne kii xëy na sax gëj na fi waaye nag daana dikk ci émission bi di Ibnu Taymiya ñu xam ko bu baax a baax ci wàllu économie numérique nekk itam fële ci réewum Amérique nekk it koo xam ne kii nekk na sax mouvement bi nga xam ne moo di diisoo pour le développement du Sénégal bu jëm ci wàllu koom nekk fële ci Koumpentoum loolu sax xam naa dinaa ci dikk ndax am na ay jamono nga sax woon maire bi loolu du ñàkk ñu boole waale ko ci waxtaan wi ñu fàttali itam ci weeru mai 2002 euh, ba léegi weeru mai bi ñu génn 2022 nga baal ma mm-hmm. euh, président Macky Sall mi ngi la def conseil spécial bu jëm ci lépp lu jëm ci wàllu ministre conseil bu jëm ci wàllu économie numérique et mois de mars bi sax Sénégal am na lu mu ci bëgg a def ak yooyu. ci wàllu satellite beeg yooyu yëpp naa ci dikk léegi ñi ngi lay nuyu Ibnou Taymiya. Ah, ñu ngi lay fay sëñ Maodo. Mhm. vraiment di kontaan rek di dellu si waat fii. Mhm. di nuyu auditeurs yëpp di leen di jaajëfal. voilà dina nag wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na. parce que ah, moom maa ngi leen di suivre moom. Ah, Euh, ñëw nga ci réew mi da d'abord en tant que homme politique intellectuel danaa dikk sax ci fi nga jaar yëpp itam ci wàllu xarala gi ci wàllu numérique bi eh, ci wàllu tamit jëfandikoo gi ñu koy jëfandikoo moment bi ñu toll fan la fan la jamono bi toll ci ci fi ñu toll nii monde bi ci affaire bi. waaw euh, boo xoolee tey sëñ Maodo euh, àddina bi fu mu jëm nii xam naa ni kooku moom umpul kenn parce que tey boo xoolee tey lépp loo gis ci numérique bi la. lépp loo gis euh, ci ci ci muy ci économie bi muy ci leneen. Mm-hmm. lépp c'est c'est c'est mm-hmm. donc yaakaar naa ni dafa am benn tendance bu leer bi nga xam ni ñëpp xam nañ ko tey mooy euh, tey ku réew bi nga xam ni fexewul ba développer écosystème numérique bokkuloo donc euh, dëkk yi nga xam ni tey boo xoolee la moyenne mondial tey su 16 pour cent économie mondiale PIB mondial bi. c'est c'est c'est généré par l'économie numérique donc te loolu day gën a yokk donc loolu bu ñu nekkee ci loolu donc ñun war nañu fexe réew mu mel ni Sénégal war nañu fexe euh, dugg ci économie numérique bi euh, développer suñu écosystème numérique pour que ñun tamit ñu mën a positionné wu suñu bopp. Hmm. parce que àddina bi fu mu jëm nii tey euh, boo demee ba nga xam ni tardé nga ci wàllu ci économie ci wàllu numérique bi boo sàgganul retard boobu moom pour nga combler ko dina dina dina metti lool. te yàlla def na dafa di occasion bi nga xam ni pour ñun africain yi pour ñun sénégalais yi pour ñu mën positionné wu bi nga xam ni ba nga xam ni ni ñu tubaab yi rawee woon ñu wàññi eh, distance boobu donc je pense que économie numérique ak numérique dans le le digital dans dans l'ensemble occasion la pour euh, dëkk africains yi comme le Sénégal pour mën avancer pour mën développer seen population yi pour que seen population yi aussi mën a am feex est-ce que est-ce que c'est vrai que président Macky Sall namee na la loolu nga nekk ci sa xam-xam tamit effectivement foofu la màcc jëm mais yaakaar nga ni le pays a les poten pour man man ci dem Sénégal. ah bon tey euh, wax dëgg yàlla xam naa ni positionné wu nañu bu baax parce que tey boo xoolee tey euh, nous sommes euh, ci les dix premiers pays yi nga xam ni en termes de pénétration du numérique tu vois en Afrique. te yaakaar naa ni position boobu bu ñu ci liggéey position boobu war nañ ko mën euh, consolider luy problème bi rek mooy bu ñu bu ñu naagu parce que xam nga Sénégal euh, sénégalais kooku si su suñu jëmm la boo dañuy dañuy dañuy teel a naagu léeg-léeg mm-hmm, mm-hmm. waaw te naagu boobu nag moom bu ñu sàgganul ay dëkk yu mel ni ay Burkina Faso yooyu ay Ghana ay Togo Bénin ñoom ñi ngi def ay liggéey yu rafet ci wàllu transformation digitale donc ñooñu bu ñu sàgganee bon ñooñu mën nañu dab barawuñu waaye boo fekk pour répondre si sa sa question bi euh, waaw tey am nañu potentiel bi parce que ressources humaines yi naam nga doyut waaye yaakaar naa ni boo xoolee ci af wàllu Afrique hmm. suñu ressources humaines yi doy na bon euh, investissement yi état bi tamit mu ngi def lu mu mën euh, mënoon nañu am lu ëpp loolu waaye yaakaar naa ni ba léegi si boo xoolee sur le cadre africain baax na Euh, stratégie bi nga xam ne ñi ngi ko yore woon muy stratégie euh, Sénégal euh, numérique vingt vingt cinq bi kooku tamit stratégie bu dëgër la bon réactualiser waat nañ ko parce que dem nañu ba ci biir gis ne am na ay problèmes yi nga xam ne ni mi ngi foofu parce que bi ñu ko depuis 2016 ba léegi gis nañu ne taux de réalisation bi nga xam ne waroon nañ ko am foofu 12 pour cent rek la tu donc dem nañu ba léegi ne xoolal nañ ko réévaluer waat daal di xool lan moo doxul ci stratégie bi pour mën ko mu gën a mën euh, performant loolu yëpp mi ngi ci donc je pense que Sénégal mi ngi ci yoon bu baax bi mais nag am na ay réajustement yi nga xam ni war nañ ko def te yaakaar naa ni yu mel noonu moo tax euh, président de la République euh, laaj ma xool ne vraiment comme que yëngatu naa ci wàll boobu à dimbali naa ay yenn dëkk africain wala asiatique ci côté boobu ne pour ma ñëw jege si ko pour ñu mën ànd ak équipe bi fi nekk di gën a mën pour consolider loolu. d'accord pour consolider wàllu numérique bi lu am solo la mais effet effet yeneen effet yi nga xam ne dafa am ci wàllu techniquement wàllu wàllu wàllu euh, économie numérique bi wàllu xale yi ni ñu songe affaire yi techniquement. informatique bi bon beneen aspect bi quoi je veux dire bi nga xam ne mën na créer ay tension et cetera est-ce que yéen a ngi bàyyi wàlla xel yenn contrôle yi waaw xam nga kooku sëñ Maodo kooku dafa di benn tendance bu bees bi nga xam ni kooku lépp lu ñëw tendance bu ñëw rek indi ay côté yi nga xam ni xalaatuñu ko woon te dinañ ko xalaat ñu ngi koy xalaat au fur et ñuy avancer bon parce que tey boo xoolee tey euh, euh, problème yooyu nit ñi di wax ci affaire internet bi yooyu kooku man je pense que yooyu c'est des problèmes pour man c'est minime parce que boo xoolee tey njëriñu économie numérique bi njëriñu numérique bi. Mhm. ak néfaste ak euh, euh, kii yi handicap yi ak euh, désavantages yi conse kii conséquences négatives yi yaakaar naa ne avantages yi ñoo ëpp mais loolu ngay wax noonu yooyu am na léeg-léeg. mais y pas de solution y pas. non yooyu am na. freiner et cetera non yooyu yëpp am na mais solu dafa di ay solution yi nga xam ne multidimensionnelle la bi nga xam ne mënoo tëb rek du jour au lendemain implant euh, teg ko ci teg ko ci kaw table bi mais je pense que yooyu ñu ngi ciy xalaat euh, du Sénégal rek mais ci même dans les pays les plus avancés ñu ngi ciy xalaat parce que il faut quand même en euh, certain moment que ñu ñu ñu ñu ñu humaniser internet bi ñu ñu ñu ñu ñu def ko de telle sorte que bon mu njëriñ doomu aadama pas détruire doomu aadama bon mu mu njëriñ réew yi mais pas détruire réew yi donc je pense que loolu euh, du Sénégal rek mooy mooy jànkonteel problème boobu waaye yaakaar naa ni dëkk yu bëri la même les pays les plus avancés mais kooku je pense que ñu ngi ciy xalaat sur les moyens euh, ak ak loi yi yi nga xam ne war nañ ko changer parce que Euh, internet il faut pas il faut pas que ñu ñu ñu fàtte dafa indi bi mu ñëwee amoon na loi yi fi nekkoon loi yooyu fu mu ne nii euh, c'est obsolète parce que léegi loi yooyu adapté ñu mm-hmm. donc il faut réactualiser encore euh, loi yooyu indi ay loi yu bees indi ay régulation yu bees mm-hmm. te loolu nag sax day jël temps mais incha allah kooku yaakaar naa ni dinañ yegg foofu daañ ci ak incha allah comme niñ ko waxee léegi euh, mais ci dafa am luy bëgg am ci boori Tambacounda après ñu ñëwaat léegi mhm. Tambacounda Koumpentoum et tout xam nga at mi mi ngi jeex te su ma juumul dernier conseil des ministres bi mhm. côté boobu lañ ko defee war a defee te ku wax conseil des ministres wax potentialité richesse et tout mhm. dans ce secteur là alors yéen ñi nga xam ni foofu ngeen nekk nekk fa am politique Koumpentoum Tambacounda zone boobu yëpp noonu conseil des ministres bi am na lu ko war a jiitu foofu normalement ban lecture politique euh, économique. waaw man lecture lañu ci def man euh, li may wax d'abord mooy ñi ngi remercier euh, président le fait que mu choisir région Tambacounda pour dernier conseil dernier conseil des ministres ci année bi au-delà de Tambacounda dama ne région naturelle Sénégal orientale parce que boo xoolee Tamba Kédougou ñun ñoo bokk réalité ñoo bokk lépp. Mm-hmm. administrativement nag bon c'est deux régions différentes mais ñu ñoo bokk réalité mais lu tax ma ne damay remercier président ci loolu parce que sa permet ñu focaliser wu ci Sénégal oriental parce que xam nga sëñ Maodo ba léegi euh, Sénégal oriental position bi mu yore biir Sénégal. Mhm. Euh, ñu bëri dañ ko desee xam. géographiquement. géographiquement ak économiquement socialement parce que tey boo xoolee stratégiquement aussi parce que boo xoolee Sénégal oriental tey ñu ngi yore frontière ak. Gambie. Mali Mali Mauritanie eh, Guinée waaw donc loolu yëpp bu fekkee ñun ñi ngi nekk frontal frontalier ak ñooñu donc xam nga ni kooku stratégie ci wàllu stratégie. kooku dañu c'est important échange commercial yi aussi donc Sénégal tey Sénégal oriental boo xoolee boo jëlee Sénégal oriental tey suñu contribution ci ci PIB national bi tey ñu ñi ngi war a nekk ci peloton de tête bi mais boo xoolee tey. suñu li ñuy recevoir en termes d'investissement de l'administration central dans cette région bon ñuy war a doon ci peloton de derrière bi donc xam nga kooku y une différence te yaakaar naa ni bon le fait que président def foofu euh, conseil des ministres bi ça permet encore ñu réévaluer encore euh, position Sénégal orientale ci biir ci biir ci biir attelage bi ko donc yaakaar nga ni lu mën a suqaliku la jëm si kanam. sur waaw waaw dinañu dimbali parce que bu fekkee ministres yi ñëw nañu directeurs généraux yi ñëw nañu ku ci nekk mën na gis potentiel région bi parce que tey boo xoolee tey Sénégal oriental euh, si mbay mi bon ñi ngi ci ci tourisme ñi ngi ci ci wàllu mine. surtout Sabodala Sabodala mi ngi ci mais boo xoolee euh, loolu taxu ñu njëriñ noonu. parce que surtout lu demee ki ni ki mine bi tey daf ñu indil ay problèmes yu dul jeex parce que boo xoolee tey suñu population yi fa nekk tey am nañu ay santé problème de santé parce que bon euh, exploitation mine yi euh, bon dafa dafa dafa am ay répercussions yu yu xaw a doy waar si seen wér-gu-yaram bon mais loolu je pense que loolu bu fekkee conseil des ministres bi am na Sénégal oriental kooku dina tax ñu gën a appréhender problème mu région bi ñu gën a appréhender problème mu problème yu ñuy bon kooku dinañu dimbale beneen problème bi aussi mooy enclave dañu c'est une région bi nga xam ni euh, dafa enclavé wu parce que boo xoolee tey man damay jël kaw département Koupantoum par exemple kaw département Koupantoum benn route nationale benn route bitumée rek moo fa nekk mooy bi nga xam ni day romb biir Koupantoum di dem Tambacounda. mais ah bon ah rek moo fa am alors que bon am nañu ay neuf communes yi nga xam ne ñi ngi ci biir. yi nga xam ni war nañ leen décentraliser war nañ leen désenclaver parce que ñooñu pour ñu ñëw Dakar ay rang-rang ñoo fa nekk te xamul loolu kooku euh, problème la. Hmm. donc ñooñu euh, pour acheminer seen marchandise yi wala wo ne ma sax bu fekkee am nañu problème wér-gu-yaram pour ñu ñëw biir Koumpentoum bari na am euh, problème la donc boo jëlee loolu nga dem région Koudir dans le Boundou. Mhm. waaw man bi may demee chaque fois su ma jaaree Paris Paris am su may waxtaan ak sama mbokk bundunke yi li ñu may wax mooy ngir yàlla dimbali leen ñu bon euh, ñu suñu yoon suñu bund parce que bu bund bu mois de mai jotee am na yenn village yi nga xam ni moom dem fa moom problème la doo ko doo ko def ba ay pour mois de septembre. parce que taw bi wala. waaw parce que taw bi parce que euh, amul accès. ok village donc. infrastructure routière yi. routière yi moom moo déficitaire moom moo baaxul moo. moom c'est vrai que gouvernement bi parce que il faut ñu reconnaître benn affaire président Macky Sall bi mu ñëwee ak léegi je pense aussi côté boobu def na am na ay jéego yu bëri yu ñu def. Mm-hmm. mais il faut aussi les leaders locaux. Mm-hmm. du de la région du Sénégal oriental. moom suivi quoi ñoom aussi. est-ce que ñoom def nañu seen liggéey ni mu ko waree. y a ça aussi parce que président mën na indi programme yu dul jeex. yi nga xam ne day njëriñ euh, askan wi mais bu fekkee leaders locaux yi tamit ñoom prendre ñu enjeu wu programme yooyu demuñu ci programme yooyu pour mën bénéficier ci programme yooyu kooku aussi bon euh, mënoo blâmer lépp pour peut nguur bee ko defut donc y problème boobu am na Sénégal oriental mais ci gàtt pour ñëwaat ci li ngay wax noonu je pense que le fait que ñu indi conseil des des ministres décentralisé. et puis dernier conseil des ministres de l'année 2022. mooy bu mujj ci at bi. bi bu mujj at bi kooku signification la te ko ñu ngi ciy remercier président parce que ça ça montre que quand euh, jox na Sénégal oriental cër te cër boobu incha allah moom euh, vraiment ñun aussi duñ ko fàtte ci loolu waaw. léegi nag bon c'est ñun nag ñun ñoo war a ñun doomu région bi ñoo war a xam aussi ne am na yi nga xam ni programme yaa ngi fi mais il faut que suñu leader locaux yi tamit ñoom aussi dem ci programme locaux yooyu mën ci mën ci bénéficier wu pour indil ko seen askan d'accord bo boo doon wax sénégalais yi comme <coughs> yàlla dogal na sax xam-xam màcc ci wàllu yu doy waar ci jaww ji économie <laughs> <laughs> parce que affaire satellite bi daan ci dëkk léegi uh-huh. définition économie numérique euh, ex techniquement euh, bon boole ci wifi bi et cetera. Ouais, xam di. Euh, c'est économie, économie numérique ça peut être un, terme un peu vague mais mën nga ko dégg gisee nii rek ne bépp koom-koom bi nga xam ni euh, mi ngi suqeekoo ci ci wàllu internet bi. voilà waaw bépp koom-koom bi nga xam ni pour am ko wala pour mu ñëw. c'est l'internet mooy à la base. waaw à la donc. par exemple borom jakarta yi nga xam ni e, càq-càq yi nga xam ni e, dañuy jóg par exemple kenn woo leen ci ci téléphone ci whatsapp ne leen am naa benn benn benn commande mais loolu yëpp ci économie numérique bi la parce que xam nga bu numérique bi avancé wul woon connexion am ñooñu du ñu mën connecté wu. Mhm. ba nit leen di woo ne la dama jëlal ma sama commande fa léegi yu noonu. ok donc loolu yëpp ci économie numérique bi la donc économie numérique mën nga ko définir que bépp koom-koom bi nga xam ni mu ngi soxee ko ci ci ci connexion ci internet bi. est-ce que voilà dans ce cas-là est-ce que wax maîtriser le réseau nga xam da ngay dem ba nga xam ne léegi affaire bi nekkatul bon c'est vrai parfois da ngay dégg ñu le côté sangam ak gogus kan seen côté yooyu aussi jékki-jékki am ngeen problème connexion yu doy waar euh, doo doo mën a xam sax ne lu xaw ci àddina bi est-ce que un pays ak fi réew mi toll ak fi jamono bi toll léegi war nañ leen dépasser au niveau. waaw euh, il faut qu'on soit réseauté. <laughs> waaw waaw problème connectivité moom dafa am kooku euh, je pense que programme stratégie Sénégal numérique. Euh, mi ngi ciy liggéey. Mhm. te am na aussi le fonds fonds universel. Euh, euh, fonds FD Sud bi nga xam ni aussi mi ngi logé ci ministère télécommunication kooku aussi mi ngi ciy liggéey parce que kooku lu mu lu tax fonds boobu sax ñu teg ko en place mooy pour mën région yi nga xam ni dañuy sore yi nga xam ni ñi nga xam ni euh, gox-goxaan yi nga xam ni vraiment pour egg foofu dafa metti te amuñu connexion pour ñu mën xool euh, saytu jàngat euh, naka la ñuy def ba connecté région yooyu parce que buñ région gox yooyu bu ñu leen connecté rek ñooñu tamit seen économie locale day développé wu parce que jàng bi dina développé wu bon sociétés yi ñu mën implanté wu bon ñoom it dinañ mën accéder ci information yi dinañ mën def yu bari parce que tey boo xoolee banques yeeg ak euh, transfert d'argent yeeg yooyu yëpp ci ci numérique bi lay doxee ci connexion bi lay doxee. te nga jàpp lu ñu jàpp ne connexion la waroon na yomb la. dafa dafa war a nekk accessible lu lu loo xam ne. pas banal mais. <laughs> mais il faut que nga comprendre benn affaire euh, sëñ Maodo. Mhm. Euh, dëkk bu mel ni Sénégal. Mhm. day metti parce que investissement yu muy laaj moo bëri. ah bon. pour accessibilité bi dafay am. oui parce que xam nga foofu. pour ay fibre optique. foog nga indi ay tour foog nga indi ay ay ay faisceaux hertziens yooyu yëpp xam nga day connecte de investissement bu bu. c'est des c'est des milliards hein. Oh, des milliards loolu moom yombut léegi lu gouvernement bi di def actuellement mooy xool naka la ñuy mënee am investissement yooyu ak ay partenaires yi privés yi publics yi pour mën euh, connexion boobu mën yokku. parce que man de récemment maa ngi woon euh, Dubaï euh, doon waxtaan ak euh, benn membre Nations Unies commission de Nations Unies pour le haut débit kooku parce que dafa am na benn fonds bi nga xam ne mi ngi Nations Unies bi nga xam ni teg nañ ko en place bi nga xam ni c'est des c'est des milliards de dollars pour mën dimbale dëkk yu mel nii Sénégal pour ñu connecté wu pour ñu yokk seen connexion yi seen connectivité yi balaa mille trente donc yooyu fonds yu mel noonu il faut que Sénégal aussi jéem ci profiter tu vois parce que bu fekkee gouvernement bi rek moo war a def loolu yëpp kooku wax dëgg yàlla. xaw a euh, dina xaw a diis lool lool lool lool parce que investissement yu yu yu diis la laajte. Mhm. mais loolu il faut que ñu toog xalaat euh, naka la ñuy mënee am euh, vraiment partenaire privé public yi pour mun ñu dimbale ci côté yooyu pour connectivité rural bi mën mën régler wu. Ah. parce que connectivité rurale bi. bu réglé woon rek da di nga gis benn amélioration qualitative vraiment bi bu bu doy waar ci ci ci ci suñu euh, ci ci ci ci ci ci la vie des population rurales la. d'accord est-ce que li Sénégal am ambition bi mu am en deux mille vingt trois wala en tout cas mois de mars. Mhm. ci programme satellitaire boobu. Mm -hmm. est-ce que lancement boobu yaakaaroo yaakaaroon ni c'est c'est très ambitieux est-ce que yaakaaroon ni yaakaar nga lu mën a nekk la. lu lu mën a nekk la. programme satellitaire lañ wax de. non non ce programme satellitaire parce que tey boo xoolee tey euh, programme satellitaire yi affaire yi euh, ça dépend euh, bu fekkee par exemple pub privé bi la moo koy gérer wala dañuy bokk ak privé dañuy partenaire wu ak privé bi kooku lu mën a nekk la parce que privé bi ñu seen xaalis. seen xaalis bi la ñu bëgg seen ñoom dañ ñu koy fructifier moo leen intéressé. Mm-hmm. te programme boobu mën na leen dimbale pour ñu fructifier seen xaalis. Mm-hmm. bon Sénégal tamit dina ci profiter donc lu mën a nekk la. bon léegi mais dama ragal rek fu mu ne nii bon affaire yi négociation yeeg discussion yi mi ngi xaw a traîner ba nga xam ni bon deux mille vingt trois pour que lancement boobu am dans deux mille vingt trois kooku euh, mën na am ay gàllankoor mais lu war a mën a nekk la te li nga xam ni bu amee it seen dina njëriñ Sénégal loolu. parce que nga bëgg ne Sénégal am na jumtukaay yu mu ko mën a defee su fekkee. waaw bu fekkee waaw parce que xam nga ressources humaines yaa ngi fii. ressources humaines yi dafa euh, bu ñu leen formé ni ñu ko waree ak fi ñu leen ni ñu leen di utiliser rek war nañ ko mën a def tu vois bon euh, xaalis bi la parce que li ci li des li ci des yëpp xaalis bi la xaalis bi bu tamit foog ñu ut fu ñu koy jëlee est-ce que léegi fan ci privé bi lañ koy jëlee walla ci ci ci public bi lañ koy jëlee kooku ay waxtaan la ak ay jàngat la ba am daal vraiment solution ci loolu mais lu war a mën a nekk la kooku jommul sa euh, jommuñu quoi. ñu waa jombul Sénégal parce que ay doomu réew mi mais États-Unis d'Amérique euh, foofu nga nekk noonu. Mhm. di liggéey ci mbir moom yi tamit. gis nga ni Afrique mu ngi mi ngi yokk yeneen réew yi ñu ngi góor góorgóorlu def ay jéego comme le Sénégal pour manque xëcc ci tubaab yi wala ñu nekk lu indépendant nekk seen yëfi bopp en Afrique wala. waaw waaw ab absolument parce que xam nga euh, yàgg naa ko wax euh, nee naa Sénégal benn handicap la am bi nga xam ni kooku. je pense que kooku dinañ ko régler mooy c'est-à-dire naka la ñuy transformer suñu diaspora en un ak euh, en avantage compétitif. ok parce que c'est vrai euh, on a eu des fuites de servo tey boo xoolee doomu Sénégal yu bëri ñoo nekk ci biti boo am ay ay nekk ci ay ay domaines yu yu. yu élevé yu élevé yu kéemaane waaye Sénégal du ci profité wu maintenant je pense que man. Euh, maa ngi préparé benn rapport sax ci loolu pour bi nga ko pour adresser ko président de république te pour liggéey ci loolu mooy c'est-à-dire que il faut que ñu yegg fi nga xam ni dinañu mën euh, euh, regrouper les scientifiques sénégalais les ingénieurs sénégalais qui sont à l'extérieur tu vois pour mën am benn conseil bi nga xam ni régulièrement dañuy waxtaan pour mën créer benn transfert de technologie Euh, et d'expertise surtout parce que mën na bañ doon technologie rek mais d'expertise de la diaspora vers le Sénégal te kooku loolu man def naa ko sama mission di maa ngi ciy def consultation actuellement ak euh, sama mbokk euh, yi nekk ci diaspora bi ñi nga xam ne ñu ngi ci ci ci ci liggéey ci yeneen ci yenn voilà pour que ñu mën teg benn benn conseil sénégalais de transfert de technologie comme ça léegi ñun mën nañu eh, xam par exemple dans les cinq années à venir yan façon technologie wala yan façon expertise la ñu war a fexe ba loolu dugg ci Sénégal. ok parce que mhm. parce que loolu moo xam nga euh, am na benn exemple bu ma lay jox par exemple euh, israélien yi. Hmm. seen diaspora bi nekk euh, aux États-Unis ñoom ñooy diriger par exemple société wala start-up euh, israélienne yi leen di wax ne par exemple liggéey leen ci domaine bii parce que fii la juróomi at fii la fii la affaire yi di ah, am na si fii la juróomi at bon am domaine bi moom boo leen ko maîtriser rek moom kii léegi da gis par exemple amul Intel am na am na benn société israélienne bu mu jëndoon euh, à un milliard de dollars hmm? waaw mais fu mu ko jënd lu tax mu jënd ko parce que expertise bi mu doon liggéey expertise boobu la gars yi soxla woon mais xam nga dafa fekk ñooñu commencé nañ ci liggéey di xalaat depuis longtemps. mais dafa anticiper. voilà seen diaspora moo leen teg ci piste yi boobu boo xoolee tey chinois yi boo gisee ñu yéeg fu ñu yegg seen diaspora bi nekk aux États-Unis kanada euh, ak yeneen dëkk yi ñoom ñoo leen ñoom ñoo leen di guider ne leen dans les dans foog ngeen demee ci côté bi côté bi côté bi et li ngeen ci mën a dimbale par exemple transfert technologie ñu dimbale leen ñu transfert technologie. te indien indien yi noonu la boo gisee Inde tey en matière de software tey ñoom ñu vraiment ils sont ils sont ils sont ils number one parce que seen ñoom tamit seen diaspora bi moo leen dimbale teg leen ci yoon ne leen liggéey ci lii liggéey ci lii liggéey ci lii tu su ko defee léegi ñoom positionné nañ bu saa yu tubaab yi soxlee expertise boobu rek day fekk ñoom am nañ ko ba noppi te tubaab nag moom xamul lu dul tu moom li mu soxla yaa ngi ko yore bon foog mu wax ak yow. ñu positionné wu ci loolu moo tax vraiment je tiens à ce que tu vois euh, président euh, programme boobu euh, président dina ko dina ko di incha allah dinañ ko ko soumettre te xam naa ni moom ni ma ko xamee dina di. dina ko dina ci dina ko activer mu gën a mu gën a par. voilà comme ça ñu am un conseil sénégalais de transfert de technologie wala bi nga xam ni daal forum la bi nga xam ne ça va nous permettre de de transférer autant de technologies possibles euh, vers le Sénégal afin que maintenant les jeunes. puisse travailler sur ça et que maintenant pour qu'on puisse préparer de de de, de futurs ingénieurs de futurs entrepreneurs yi nga xam ni ils seront capables quand même de de devenir un autre Bill Gates ou un autre euh, Steve Jobs ok parce que loolu moo ñu intéressé ñun tey ñun ñi nga xam ne évolué nañu à l'extérieur il faut que ñun ñu dimbali réew mi pour que réew mi mu mun lancer wu. Mhm. pour que ñun li nga xam ne ñun par exemple yegguñu foofu suñu suñu doom yi suñu jarbaat yi suñu rakk yi mën yegg foofu. waaw mais loolu ça demande non seulement des moyens mais organisation aussi. waaw stratégie la te bon yaakaar naa ne. boo gisee ba ñëw ci wetu président yaakaar naa ni loolu ci la bokk. ok tu donc euh, man incha allah bu soobee yàlla euh, maa ngi ciy liggéey ak euh, sama. sama naataango diaspora bi bi nga xam ni dinañ ko teg en place bi nga xam ni. dina am benn conseil bi bi nga xam ni dina conseiller le Sénégal dans ce domaine là bi nga xam ni universitaires yi dinañ fa nekk ingénieur nañ fa nekk entrepreneur nañ fa nekk d'accord mbokk yi ma fàttali ba léegi ñu ngi ci jano bi ak Ibnu Taymiya nekk koo xam ne kii fii ñu toll nii euh, ingénieur la ci wàllu gii muy wax nii jëm ci wàllu économie numérique bi spécialiste la ci tamit également nekkoon nekk États-Unis tamit nekk itam koo xam ne kii euh, ministre conseiller la ci ci wetu président Macky Sall ngir loolu gën a suqaliku gën a jëm ca kanam fi réew yi toll fi àddina bi toll euh, ci wàllu technicité bi nga ci aju politiquement parlant adet <laughs> ah, ci la bokk di xam nga ah, oui la diaspora aussi techniquement mais Koumpentoum euh, dafa nekk dëkk boo xam ne dañu wax ne ci Koumpentoum potentialité waxuma Tamba ah, mais Koumpentoum en tant que mm-hmm. dëkk ak li ko wër mm-hmm. wax nañu ne ci suuf si lu bare ngi foofu mais nan la ñuy def ba ngeen lijjanti seen gox yooyu est-ce que accessibilité bi nga doon wax léegi la est-ce que problème d'eau problème d'électricité loolu ouverture loolu mi ngi ci mais problème de leadership mi ngi ci leadership waaw problème de leadership mi ngi ci xam nga tey jiwuma fii pour di ŋàññi kenn non du di waaw <laughs> mais bon euh, dafa am yenn yi nga xam ni euh, boo xoolee par exemple euh, tey boo ku mel ni commune nga ne ba léegi di ñi dañu am problème ndox wala nit ñi dañu am problème éclairage boo xam euh, yéeme na. Mm-hmm. tu vois bon tey Koupantoum département Koupantoum tey euh, mooy départ mooy département bu gën a bu gën a bu gën a actif euh, du point de vue économique dans le dans le dans le dans Sénégal oriental ou bien dans dans dans la région de Tamba tu mais boo gisee ba léegi ñi ngi dellu ginnaaw parce que luuma yu gën a mag. luuma yu gën a mag yi foofu ci ci biir ci biir région bi ko département Koumpentoum la nekk ñi ngi fa yore ay lu tolloo juróom-ñaari luuma ya nga xam ni wax dëgg yàlla macha allah tu tey donc tey luuma bu am euh, bu gën a mag aussi en terme de bétail Sénégal Payar la nekk si département Koumpentoum donc tey ñun Koumpentoum département Koumpentoum ñi ngi yore. avantage ak potentialité yi nga xam ni. Mm-hmm. Euh, dama ne leadership moo ci manqué parce que aussi il faut que leadership bi xam naka lay utiliser potentialité yi nga xam ne yàlla may na ko ko pour mën yeggal euh, gox bi fi mu war a yegg. tu mm-hmm. waaye nag wax dëgg yàlla bu fekkee ki nga xam ni par exemple euh, mu ngi gisee par exemple commune Koupantoum ba léegi comme un village bu ko gérer comme un village alors que aujourd'hui nous faisons face à des défis euh, urbains kooku xam nga kooku du du dem. Mm-hmm. question donc y a y a, y a ce problème là. tu donc loolu moo tax ba léegi Koumpentoum am problème bi mu am te tant que suñu mairie bi wala suñu légi suñu suñu leader yi ñu ngi bëgg a gérer comme kuy gere par exemple benn village kooku du mës a dem. parce que tey Koumpentoum c'est une ville. d'accord li aju ci wàllu économie numérique bi wàllu digital bi ak yu ci aju nga nekk ci conseil njiit réew mi. Mhm. bilan président Macky Sall sur le plan infrastructure ñu bari wax nañu ne bilan c'est positif voilà en tout cas wax nañu ne. def am na ba bon quatorze région yi ban lecture nga gis ci loolu ci wàllu. non xam techniquement bon. xam nga sax maa ngi lay wax ma ne la euh, président Macky def na li mu waroon def indi ay programme de développement sur ci infrastructure yi. Mm. peut leader locaux yi. ñoom ñoo demul jéem a xam lan la programme yooyu mën a defal seen yi gox bon suñu cas par exemple dans le cas de de la commune de Koubantoum on a profité wuñu ci loolu tu vois am na ay programmes yu bëri yu fa nekk on n'a pas profité de ces programmes. Mmh, ok donc xam bu boobaa kooku euh, mënoo ne président la kooku je pense que euh, suñu bopp la mais bu fekkee pour répondre à ce question bi. bilan président Macky Sall sur le plan des infrastructures. globalement je, je pense que c'est c'est très positif c'est excellent parce que tey boo xoolee euh, infrastructure nit ñi dañu ne non kenn du lekk infrastructure waa dëgg la kenn du lekk infrastructure mais tey bu fekkee waa Payar wala waa waa waa waa waa Fongolimbi euh, dañuy soxla ceeb wala dañuy soxla euh, diw bu fa war a ñëw wala dañuy soxla ay garab yu fa war a yegsi mais ci yoon yi la ñuy jaar. bu fekkee yoon yi nag sa mënul amuñu yoon bu ñu fay jaaree amu kooku problème la mais nag est-ce que c'est suffisant non c'est encore c'est c'est y a encore beaucoup de choses à faire mais mën naa wax ni moom wax dëgg yàlla def na jéego bi nga xam ni euh, prédécesseur prédécesseur am yi bu ñu ko defoon wax dëgg yàlla yaakaar naa ni bon tey dinañu romb fi ñu fi ñu nekk tu vois mais tey boo xoolee président Macky Sall tey en douze ans tu vois wala si ñaari ci ci ci lim bi diir bi mu fi des li mu def. yaakaar naa ni amul benn président bu ko def ci ci ci diir boobu kooku il faut le reconnaître parce que xam nga euh, lëkk aussi noo ko bañ bañ bañ bañ ñaar rek mën na daw. <laughs> nga bëgg wax ni daal par exemple <laughs> président Macky Sall fii ñu tollu 12 na ci liggéey boo xam ne ci infrastructure yi bi c'est très positif. pour yow waaw kooku moom réalité la tu vois réalité parce que man mi nga xam ne maa ngi jël yoon di dem ku kuppantum saa yu ne man xam naa boobu temps su pour dem kuppantum ça ça me prend presque tout une journée. mais tey su ma fajaroo Koupantoum tey balaa 11h ma yegg de su ma fajaroo Dakar euh, balaa 11h ma yegg Koupantoum waaw xam nga loolu kooku avancé la. ok d' accord Ibnu Taymiya ci ci Ibnu Taymiya ci loolu nga xam ne ci la rek nekk ci wàllu numérique ba léegi ak xel mi ngeen ci war a mën a am wala xam-xam ngir jàppale ko njiit président Macky Sall ngir itam loolu nekk loo xam ne luy jëmale réew mi la ca kanam. Euh, mais euh, nekk nga ko xam ni kii ah si ay diplôme yu ñu xam la xama fi nga jaar yëpp mënuma ci mënuma ci jaaraat parce que euh, soxna si jox na ma fii ay information yu bare bare bari yoo xam ni yii euh, si ay mbir la bon no seulement sax ci famille diine bi nga ju ju judde juddoo et tout ça mais noo def bàyyi avec NBA yi France leadership fii nangam fii ah stratégique actuellement il est expert en technologie internet teams mais comment nan nga loolu loolu la xar ci loolu. <laughs> non xam nga xam nga sant yàlla rek. Ah, alhamdulilah. sant yàlla sant waajur yi. Mhm. parce que bu fekkee eh, doomu aadama da nga da nga gane si àddina waajur bi woon na de teg la ci jàng rek ne moom santuma la leneen lu dul loolu wax dëgg yàlla kooku sant la. bon sama sama jaar-jaar nag moom damay wax tout le temps que ni eh, wax dëgg yàlla je je dois beaucoup à mon père sama papa moom wax dëgg yàlla mënuma ko fay. ok mi ngi tëdd Balzac waaye moom ci côté boobu. Mhm. Eh, maa ngi fàttaliku bi ma jógee eh, fële Tunisie def sama premier cycle dellu si bëggoon a liggéey fii tu vois kontaanoo ci woon balaa ma doon ne boobu temps dama ko sax Canada. mais dafa mës a wax benn wax mu ne ma xam nga Ibnu Taymiya lu may kontaan loo mu ne loo ma mënati jox ci àddina euh, neex na waaye lenn boot boo ko defee vraiment dina xam ni sama mission accomplir naa ma ne ko mooy lan mu ne ma nga indil ma benn diplôme doctorat ma wékk ma wékk ko sama saal. diplôme doctorat. waaw mu ne ma loolu boo ko defee ma xam ne yow tamit di nga contribuer ci humanité bi. ok nga dem wuti doctorat. nga dem wuti doctorat. noonu laa génnee dem école polytechnique Montréal def fa master euh, def fa def fa PhD mais boo bëlee léegi même mi may lim may wax sax dafa may ne chaque fois même bi ma amee doctorat sax mu ne ma loo mën a yokkaat ci xam-xam rek yokk ci. Ah, xam-xam lu doy. waaw parce que dafa ma daan wax. Euh, xam nga moom nag moom euh, <laughs> la woon. waaw ok waaw moom ixwaan la woon li ma daan wax tout le temps mu ne ma gis na doomu aadama. ma tey lii alamul islaam yi li ñu soxla mooy ay ingénieur yeeg avocat yeeg expertise bi nga xam ne dina mën améliorer qualité de vie population yi tu vois donc il insiste tout souvent sur ça donc xam-xam boo mën a am ci loolu daal mënuma jël donc kooku xam bu fekkee nit am nga ku lay ah, pousse quoi ci kooku kooku moom mënoo mënoo lu dul di ko sant yàlla def nag bi ma génnee aussi boo xam ak euh, ngay gën a jàng di gën a gis domaines yi di gën a xam di gën a pousser sa curiosité intellectuelle bon loolu moo yegg ba nga xam ni bon. <laughs> et que yaakaar nga ni loolu ba donte sa way juree jaar na yow foofu mais yaakaar nga ni avec les moyens dans cinq ans par exemple parce que am xam ne dañuy wax deux mille trente ay objectivement pour que euh, seen seen objectif pour kii am euh, ñu man a maîtriser euh, kii bi numérique bi. dans cinq ans Sénégal mën a nekk beneen niveau avec l'expert. oh absolument absolument absolument dafa lay xool li parce que numérique bi tey. Euh, li ñu ci mënul def néew na man dama lay jox benn exemple am na kooku yaa yaa yaa dix ans de cela maa ngi woon liggéey ak benn benn société euh, japonaise bon ñu doon def benn euh, test Inde mais test bi lan la woon par exemple xam nga jigéen ñi soxna yi bu ñu bu ñu bu ñu ëmbee mm-hmm. dañu am na ñu nga bëre dañu am problème euh, tension artérielle ñii di am problème obésité ñii di am problème euh, suukar mais te Inde par exemple ay région montagneuse la yi nga xam ni euh, seen médecin pour ñu dem foofu mhm. Mhm. dañ koy médecin yi duñu fa nangu dem dafa sori dafa sori mais ñun par exemple benn système bi nga xam ne c'était basé sur sa sur l'internet bi nga xam ni par exemple jigéen ñi ëmb yooyu dañu am benn benn benn case bi fa nekk chaque matin ci village bi dañuy dem mesurer par exemple seen tension seen euh, ak seen seen seen signes yi sur à travers l'internet euh, ñu yónni ko ci benn ci centre hospitalier bi centre hospitalier bi analyser ko ci gaaw gaaw xool léegi est-ce que euh, jigéen x wala jigéen x wala y wala z war nañ ko indi xam loolu amélioré te ça a réduit presque de quatre-vingt-dix pour cent. et puis rapidement. rapidement quatre pour cent jigéen ñi doon dee yooyu yëpp ci affaire u affaire bu ñu ëmbee ci affaire u. di am doom di am doom yooyu loolu ça a réglé ça quatre-vingt-dix pour cent. ci ci ci ci ci numérique bi. ci numérique bi tu vois par exemple Afrique du Sud am na benn programme bi ma fa doon liggéey ñoom par exemple nu ñuy def par exemple ci ci dëkk yu sore yi. waaw li ñuy def mooy dañuy genre case yooyu lañ fi centre yooyu fay teg basé sur le numérique nga xam ne tous les matins seen maladie dañuy def euh, triage bi yoon di information bi ci centre hospitalier ak centre hospitalier bu mag bi ñoo ñu xool yan yan médecin ñoo jar indi pour hospitaliser leen ak yan ñi nga xam ni yan maladie la ñu war a indi pour hospitaliser leen wala ñi nga xam ne war nañ leen ba mën a bàyyi foofu jox leen garab su ko defee loolu day réduire taux d'hospitalisation yi comme ça lits euh, d'hôpitaux d'hôpitaux yooyu maintenant on va les affecter à de malades qui sont beaucoup plus critiques ok tu vois et ça réduit aussi day day réduire xaalis bi nga xam ni état bi waroon noon na ko def ci hospitalisation yooyu yëpp tu xam loolu yëpp euh, affaire la. ça veut dire que kon seen numérique bi dafay transversal bàyyiwul benn secteur. benn secteur ma joxaat la benn cas par exemple euh, pour suñu mbokk yi nga xam ni tey vol de bétail dafa am. Mhm. mais tey mën. ba ñu criminaliser ko mën nga tey am ay ay ay ay tag yi nga xam ni mën nga ko def ay puces euh, digitales yi nga xam ne mën nga ko def ci ci ci ci ci ci mala bi de telle sorte que bu génnee espace bi nga xam ne moom nga ko fixé rek mu mu mu yónni SMS par exemple boromam ci na ah sa mala de mala numéro 105 par exemple génn na espace bi nga ko assigné woon. mi ngi mi ngi parti tel. wala waaw ngi parti tel. boobu boo ci defee géolocalisation sax mu ne la bon mi ngi euh, par exemple sud-est tu as tel degré tel degré jox la coordonnées xam loolu yëpp numérique la loolu day yokk efficacité bi. day yegg bu ñuy sàcc jur gi mën ngeen fexe ba ku sàcc ay nag wala xar am na lu ngeen di defee ci puce bi ci ci ci ci bàyyi ma ci bala bi. Hmm. fu mu tollu dañ koy xam dañ koy localiser. dañ koy localiser rapidement rapidement ñu xam fu mu nekk. moom kay bu buñ ko ren rendiwul parce que sama mbokk looloo yeeg si si ñoom moom duñ ko yàggal. waaw rëg rëg tam ñu kii ko. <laughs> waaw waaye waaye daal bu fekkee moom mi ngi dund moom. Mhm. boobu moom moom moom dañ ko géolocaliser bon ci mbéy mi tamit. Mhm. kooku def naa ko de am na liggéey naa ci ay projet yu bëri yu mel noonu par exemple mën nañ nga def ay ay ay senseurs ci biir tool bi de telle sorte que par exemple ci région yi nga xam ne ndox bëriwu fa dinañ leen ne par exemple boo demee ci ci ci carré ex kooku wax laaj na ñu yokk ci ndox mi wala ñuy laaj na ñu yokk engrais bi su ko defee kooku day yokk productivité tool bi aussi et puis. c'est des informations yu mu lay jox. yu mu lay jox. ok tu vois par le numérique la koy yónni ci benn ci benn centrale euh, nga analyser données yi nga ne ah waa tel demal ci tool bële ci suufu dimb bële nga di yokk ci. engrais est-ce que des jeunes euh, boobu li gouvernement bi soxla ci wàllu emploi. emploi des jeunes par exemple. Mhm. gouvernement bi am nañ ci programme est-ce que yaakaar nga ne avec le numérique foofu mën na contribuer pour rapidement parce que programme comme président Macky Sall ci yooyu la la nommé moo te conseiller nga ci. non de waxuma la non seulement da ko non seulement da koy yokk mais ay emploi de qualité la leen di jox parce que c'est des emplois du futur. doo doonatul ay ay emploi jox leen ñuy pavé yoon yéeg yooyu nga xam ni. Mhm. bu ñu wàccee nga jox leen mille cinq cent wala deux mille ay ay emploi yi nga xam ne dinañ ci mun dund suturalu si suturalu si seen njaboot. ok te lool la ñuy soxla actuellement je pense que numérique bi buñ ko buñ ko programme buñ ko déroulé ni mu ko waree bu ñuy dimbalee Sénégal ba Sénégal digitalisé wu ni mu ko waree. Mhm. je pense que wax dëgg yàlla euh, askan wi dina ci dina ci bénéficié wu lool lool lool. Hmm. am na ñoo xam ne dañu wax ne euh, jamais wala boog dana yàgg lool est-ce que yaakaar nga ni gratuité numérique mën a nekk. ah ça sera <laughs> ah, mën na ne man mën na ne de mën na ne mais. Euh, ba pas gratuité mais xëy na peut-être ay secteurs walla waa ay secteur xam nga ça dépend rek xam nga ku ci nekk loo gis rek bu amee rek volonté politique da koy lal. Mhm. bu fekkee par exemple am nañu volonté politique ne lii par am nañ koy def gratuitement au Sénégal bu fekkee état bi yaakaar na ni mën na am ressource yu yu koy yu koy. yóbbu yóbbu kooku mën na ne. waaye tey boo xoolee tey li ma la wax investissement bi dafa dafa diis parce que ay fibre optique yeeg ay faisceau hertzien yeeg yooyu ay ay ay c'est des centaines de milliards yi nga xam ni état bi tey mënu mënu mënu mënu mënu yore loolu yëpp parce que da ngay dégg ñu la Amérique gi nga nekk nii ñu ne eh, ay WhatsApp yooyu dépassé nañu ay WhatsApp ak ñu ngi ci yeneen secteur ñu ngi ci yeneen domaine ñu ngi essayer trouver ñeneen. à la limite da dem ba foofu nga am fa yooyu sax da comme ndox mooy naan <laughs> day yóbbu. waaw parce que évolution bi day gaaw foofu par rapport ak Afrique. waaw évolution bi la rek ñun aussi dinañu yegg fi nga xam ne américains yi ñu ngi toll bu ñu fa toll ba en terme de a toll kooku c'est sûr. c'est-à-dire il faut tellement mettre en place stratégie yu baax. ndànk-ndànk ndànk-ndànk mais war nañ fa mën a yegg mais tey tey tey li ma bëgg tey Sénégal mooy seize pour cent économie numérique moyenne inter moyenne mondial bi seize pour cent la man li ma bëgg tey mooy ñun seize pour cent yooyu ñun ñu dugg ci wala yokk ba yokk ko. Sénégal dugg ci ko voilà parce que man tey seize pour cent pour man euh, contribution numérique ci économie nationale bi tey on est en dessous de dix au Sénégal. matuñu dix pour cent. matuñu dix pour cent terme eh, numérique bi ci économie réew mi àggul 10 pour cent. 10 pour cent. participation numérique bi àggul foofu àggul si euh, parce que euh, gis naa chiffres yu bëri ñii di wax ay ay ay onze ay dix mais man man taux yu chiffres yu conservateur yi ma gis sept pour cent la mais te alors que tey je pense que bu ñuy tegee stratégie en place vingt pour cent sax mën nañ ko fa yegg. Hmm? wallahi mën nañ ko def. ah loolu xam naa bu ko président Macky Sall déggee dana ne waa Ibnu Taymiya donc voilà euh, mbokk yi ba fàttali ba léegi ne ñu ngi ci jano bi ak Ibnu Taymiya bon léegi nag maire bi moom léegi waxatoo ci wala yaa ngi ko bàyyi sa ginnaaw bon probablement bon waaw maire bi xam nga comme élection yi jotagul waaye euh, waaw balaa boobu moom <laughs> yàlla moom mooy dañuy bàyyi lépp ci loxo yàlla xam mhm. moom mooy décider daal euh, bu bu bu yeneen élection yi ñëwee mille vingt sept mhm. waaw bu fekkee gis naa ni ba léegi sama sama sama sama sama ñëw ci mairie bi am na sens euh, bu boobaa daa ci dugg bu fekkee nag moom gis naa ni amul sens wala mën na demee neneen kooku aussi on tirera les conclusions. d'accord ci loolu nag ci la duggee ci lii Cour des comptes def. ces temps-ci bon am na ay contrôle yoo xam mais nag Cour des comptes ah je vous rappelle que yéen président Macky moo ko fi moo ko fi samp ma bu ma fàttali ko sax am na benn euh, benn loi organique boo xam ne bi c'était en 2012 mm-hmm. euh, numéro 23 du 27 décembre 2012 euh, boobu moo créé woon affaire ay ay Cour des comptes yi et cetera après yow OFNAC mm-hmm. en tout cas ci ayam la yooyu amee nii gën ko gën ko en ci lañ ko gën a dooleele mm-hmm. aujourd'hui am na rapport bu génn mais fi mu génne moo xaw a sensible mooy bi ñu defee xeex jëmale ko ci Covid 19. bi mhm. aujourd'hui am na ñu bari ñu épinglé maanaam yorin bi ñaaw na ñaaw boo xam ne bii. Mhm. mais à la limite les Sénégalais am na ñu ne gars yi c'est des voleurs am na ñu wax loolu. man du man maa ko wax mais ñoom ñoo ko wax parce que rapport bi li mu wone mhm. soo defee traduction bi loolu la lay jox. Euh, en tant que homme en tant que ingénieur en tant que technicien en tant que quelqu'un boo xam ne bii. loolu da koy gis ci yenn réew yi peut-être mu xaw a raar. réew moo xam développé comme le Sénégal euh, ban lecture politique euh, même sociologique nga ci am. waaw benn xam nga euh, rapport Cour des comptes benn gis naa ko. Mhm. Euh, mais je dois avoir l'honnêteté de diir que ni liiraguma ko. à ah, voilà pour globalement. voilà pour mën am benn jugement bu bu bu donc damay éviter vraiment di di ci def ay commentaires. Hmm. tey gisuguma gisuguma. defagoo lecture bi ko quoi. voilà defaguma lecture mais loolu bu loolu weesoo li ma mën wax mooy comme que rapport Cour des comptes jëbale na ko ki jëbal na ko ki mu ko war a jox. kooku it jot na ko te gis nañu ne tey président ainsi boppam def euh, il a instruit à ce que ba premier ministre ñu saytuwaat rapport boobu xool manquement yi fa nekk je pense que man kooku aw ma ci beneen beneen jàngat bi may ne xam naa ni euh, président bu ñu ko joxee rapport bi ak premier ministre bu ko jëb bu ko joxee euh, ay conclusion président dina jël les actions qui qui qui vont s'impo qui s'imposent donc je pense que kooku xam nga sëñ Maodo man je suis un républicain. Hmm. tu vois je crois aux institutions bon bu fekkee eh, am na institution yaa ngi fii ñoom am na fu mbir fu mu war a jaar bon pour man na jaar foofu rek. tu vois ñu respecté voie bi waaw ñu respecté ko te xam naa ni président aussi bu tegee affaire bi ñëwee ci table am euh, bon il va prendre les les les les mesures ki s'imposent ko mais nag bu fekkee manquement yooyu ñuy wax ni ma ko déggee ci ci ci ci presse bi. bi waaw waaw bu fekkee loolu loolu lu am la. Euh, wax dëgg yàlla euh, lu ñu war a naqarul la. Mhm. waaye nag comme que li ma wax moom liiruma ko. Euh, te dama ne woon ci weekend bi lay profité wu pour pour pour plonger là pour xool ko waa damay moytu vraiment def benn. jugement sans pour loolu may nañ la ko c'est normal loolu sa sa sa àq la. Mm. mbokk yi ba ma fàttali ba léegi ñu ngi ci eh, jano bi xam naa li ñu des sax ci waxtu taxatu ko taxul mu bari dara 2024 élection dina am bien que sax yow loolu euh, yow comme yow technocrate nga doo ci xaw a kii mais euh, ki la ba jox la conseiller nga nekk ministre conseil ci wàll numérique bi mu dafa waxagul lu leer moom <laughs> foofu la <laughs> la problème bi nekk est-ce que président ma Sall day dem ci élection yi est-ce que du dem ci élection yi lettul nit ñi firiwu leen waaye euh, bon. waaw mais sëñ Maodo xam nga man dama yaakaar ni nit ñi dañu def benn benn faux débat la ñuy ay. deuxième quinquennat ak troisième mandat mm-hmm. ak yooyu pour man. Euh, c'est pas oh, le débat. non non c'est pas un débat parce que xam nga lu tax euh, le Sénégal est une démocratie quand même assez respectable en Afrique. Mm -hmm. tu vois dans le monde. nous avons des am nañu institution yu dëgër. Mm-hmm. tu vois am nañu cour constitutionnelle. Mm-hmm. am nañu bi nga xam ne mooy lijjanti affaire élection yi tey bu président newoon tey dama bëgg un deuxième quinquennat. tu moom du tëb tëb rek organiser élection da koy jëb de cour constitutionnelle mooy mooy mooy xool euh, saytu candidature am ne kii c'est recevable wala c'est pas recevable. ok dégg loolu bu weesoo c'est le peuple sénégalais aussi moom mooy décider ne est-ce que dañ ko jox beneen quinquennat wala nuñ ko ko jox donc pour man tey comme que loolu yëpp mu ngi ci yoon bi. pour yow jërul wax quoi. kooku dama gisul lu ci lu ci jar tey man li am solo pour man tey. mooy nañu liggéey pour améliorer qualité de vie sénégalais yi. te tey loolu boo am importance parce que tey béykat bi ci digg ñaani wala béykat bi digg euh, fële euh, njàmbur kooku tey li mu so moom tey président de fi dix mandat yooyu moom yittelu ko li muy dundee ak li muy dundee njaboot moo ko yittal donc comme que institut eh, am na nañu ay institution yu nga xam ne ñoom ñoo war a def seen liggéey ci côté boobu nañu bàyyi institution yi def seen liggéey ñun li ñu war a def mooy liggéey réew mi nañu liggéey réew mi te aussi am na benn affaire bi nga xam ne il faut que prés euh, politiciens sénégalais yi comprendre ko réew mi ñu ñëpp ko bokk de. bu ñu ko bu ñu bu ñu ko lakkee ñu ñëpp koy ñàkk tey àddina toll na fi nga xam ni tey les extrémités tey dañ ko war a éviter. Mm-hmm. que ça de tous bords le monde ne se gouverne plus par les par les par les extrémités. bu ko defee rek musiba lay indi. donc tey nañu xool naka la ñuy bâtir consensus pour mën avancer te yaakaar naa ni il faut que homme politique sénégalais comprendre loolu tey. Mhm. ñu xam ko bu baax mu jeex quoi. waaw alors il nous reste pratiquement cinq minutes euh, Ibnou Taïmiya ministre conseil ci wàllu numérique bi ak itam euh, léegi am nga plan directeur boo xam ne ci nga fas yéene jaar peut-être président de la république ndax jox na la objectif tel wala dafa la libéré rek. bàyyi nag sa programme comme la xam-xam sa xam-xam foofu la jëm wala. waaw président. wala yaa ngi ay proposition yoo xam ne après sous peu nga jox ko ko. xam wax dëgg yàlla maa ngi ma dinaa ko remercier foofu parce que it jox na ma xam na xam na sama sama sama sama sama sama valeur. ci loolu. ci loolu. Mhm. bon indi na ma moom objectif am mooy élargir écosystème bi. Mhm. nee na ma nag bon Ibn Taymiya bon affaire baa ngi nii. léegi naka nga yaakaar di fii lañu war a jaar ba teg ko ba jëlee ko fii yóbbu ko fii. ok léegi nag loolu man li ci des maa moom léegi loolu nag mooy préparer rapport bi bi nga xam ne incessamment euh, dina dina tegu ci loxoom ne ko lii war nañ ko def lii war nañ ko def lii war nañ ko def su ko defee léegi pour man ñu yegg fi ñu yegg su ko defee léegi ñu commencé nag di di di liggéey maintenant petit à petit lépp li nga xam. mais yaa ngi ci rapport bi. waaw rapport bi daanaka pare na sax. pare na ah kon nag alhamdulilah. waaw après nga jébbal ko ko. wax jébbal jébbal ko ko. tu léegi ñu toog ba toog ak moom encore waxtaan ak moom euh, xool euh, parce que tu sais il faut dire que il faut que président xam na xam na valeur numérique bi. xam na numérique bi fan la fan la. xam na njariñam njariñam. ok te te te yaakaar naa ni ci loolu euh, rapport boobu bu tegoo ci loxoom. bon après bu ñu liggéey bu ñu waxtaanee par exemple dinañuy définir axes yi nga xam ne prioritaires yi d'accord kon léegi looy jeexalee looy tëjee quoi en conclusion. waaw moom di la di la gërëm rek di sant parce que chaque fois su ma ñëwee fii moom kontaan rek. Euh, xam nga yow ci rajo bi nga bokk quoi. waaw c'est ça. yokk ñi nag moom xam nga doomu daara bu gisee bu gisee moromu doomu daaram day waaw <laughs> c'est cela <laughs> waaw waaye dine rek euh, benn message laa bëggoon a lancer vraiment euh, aux hommes politiques sénégalais mm-hmm. parce que réew mi fu mu jëm nii tey mm-hmm. nañu def ndànk te réew mi ñu ñëpp ko bokk. réew mi bu ñu ko jàppee defar ko suñu suñu doom yeeg suñu rakk yi suñu jarbaat yi lañ koy defal waaye bu ñu ko lakkee it moom suñu suñu njaboot lañ koy lakkal donc nañu fexe ut consensus tout parce que tey àddina bi tey tromb nañu fi nga xam ni extrême yi la ñuy ku ci nekk day arc-bouté di ne de tout ou rien tu vois man nit ñi nee nañ ma waaw lu tax ngay dem di si yow tu as été opposant de lu tax nga dem ci président di li ma ne ko non man parce que dama mës a opposé au président ça ne veut pas dire que du ma mës a liggéey ak moom parce que ban ni ma bëggee Sénégal président tamit noonu la bëggee Sénégal peut-être suñu gis-gis ñoo bokkut tu wala mu ñoo bokkutoon te vraiment gis na bi ma approché président gis naa ni boo wax dëgg yàlla yaa yaa y a une convergence. Euh, des idées des donc ni li ma bëgg a wax nit ñi mooy ñun Sénégal nañu dimbalante li nga xam ni bokk nañ ko ñu consolider loolu ku ci nekk li mu gëm nag na gëm li mu gëm waaye ku ci nekk tamit na toléré ki ci nekk ci li mu gëm. que respecté lëkkale gëm tamit. waaw d'accord donc donc daal loolu lu am importance la. te te maa koy maa ngi ñaax euh, monde politique homme politique sénégalais ñu bàyyi xel ci loolu. voilà. jërëjëf Ibnu Taymiyya ñu ngi lay sant Ibnu Taymiyya ñu ngi lay sant bu baax a baax tur bi màgg na lool ni ma koy faral di waxee <laughs> parce que un grand nom boo xam ndax pour ku kii connaît Ibnu Taymiyya ñu ngi la ci sant bu baax a baax di la gërëm di sant itam mbokk yi nga xam ne moment bi ñu doon déglu fii ci janoo bi incha allah beneen dimanche daañu dikkaat ci beneen gan jërë ngeen jëf merci